nga nuyu sa mbokk yi nga ànd ak Alaaji ngeen dem ba Ñooro waaw bu ngeen fa jógee nga dem nuyoo ji limal ma gox yëpp ndeysaan ma dem gox yëpp ma dem fa euh, bi ma euh, ñëwee dellu see Kawlax nag ñu def xasida bu rafet boobu ay gune yu tuuti lañu Eh, yónnee si ma ko ndeysaan mu rëy ci man lool sunu najaay bu baax bii Mouhamed Yaxya ndeysaan dal di ah bi bindal ci gannaaw de bindal ci gannaaw de wan leen ni ni nga bige ci xasida bi ndeysaan ma bind ca gannaaw salabatka an xuurin hunaka xisaani xuurun ataynaka min bani xassaani mu ni ma ëpp na de eh, dama ni eh, kayit wi jóge ci kër xaaj Abdoulaye Niass ak baat yi ñu ko toggalee dégg naa xuuru nay na am na caal janna waaye nañ ma bàyyi ma jàppandi ci yii waaw waaw eh, benn du àgg ci ñoom wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan eh, seen bàyyi dafa mënoon wéy ba Serigne Alioune daf daanu xaal bu bu déggee xasidaam eh, maa ngi nettali daaliye ba ma gisoon ca kaw kabul waxaaj waaw daaliye ba mu dof mu dof complètement ni ma kii ñu jëkk ña rekk ko waroon wax والله تسين بايك أسلاك أسلاك عن نغمات الشادي الشادي لولو كن مسنكو ديك ها أسلاك عن نغمات الشادي الشادي وعن عيوني مهل جرعاء بالوادي أنا زهير أنا زهير أنا النابغة أنا امرؤ القيس أقني فوفو أقني فوفو برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان thank